Al Madina Travel Salum Jidda SeneInfo International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bi di seen diine bismillah walhamdulillah wassalatu wassalaamu ala mawlana rasulillah aljuluusu fi salaati kayfiyatul juluus fi salaat naka la ñuy toogee ci julli moo xam ñu nekk ci diggante ñaari sujjud wala taaye gu njëkk wala taaye gu mucc mooy suñu masala tey balaa ñoo soobu ci masala bi ñu ñaanal suñu mbokk ya ca Gaza ak ci Palestine yëpp yàlla dimbale leen ci seeni noon nooni nit nooni mbaax nooni yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mooy assahaayina ñu tuddee seen bopp réewum Israël te duñ réew dul ci tur yal yàlla libéré Palestine yëpp li ko dalee ca dex ga ba ca géej ga may ñu tawfiq ñun ñëpp ñu jullee ca masjidul aqsa masra sayidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa falastin kulluha xurra wa muharrara bi barakati alquran alkarim wa xurmati alxabibi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ñaari jotaay wala ñaari toogaay ci julli ñoo am yi ci madahib yi nga xam ne ñoom al madahibul arbaa ñaari toogaay yi ku nekk ci ñoom am nga ca position toogaay bu njëkk ba mooy al iftiraash toogaay yu ñaareel bi mooy atawarruk al iftiraashu mooy nga samp sa tànk ndeyjoor bile tànk baaraam yi jublu xibla dégg nga toog ci tànk càmmoy bi lii mooy al iftiraash nii ngeen ko gisee lii mooy al iftiraash dégg nga lii mooy al iftiraash toogaay bii nag la imaam Abu Xanifa rahmatullahi alayhi wax ne julli gi yëpp nii la ci góor war tooge julli gi yëpp bu dee jigéen nag mu ne dafay pooju dégg nga pooju mooy nga dugal tànk càmmoñ bi ci biir mu lalu ni le bii de continuer samp bu ko defee nga daal di toog ci sa jëkkeekaay bi ci suuf lii la Abu Hanifa te wax ne jigéen moo koy jullee bu dee góor nag toogaay bu jëkk bi lay toog bu dee Imam Malik ak waa këram nag c'est tout le contraire ñoom julli gi yëpp moo xam góor la moo xam jigéen la ñi ngay toogee mooy booju moo xam ci diggante ñaari sujjóot yi la moo xam ci dégg nga bi ngay taaye taaye bu njëkk wala bi ngay taaye taaye bu ñaare bu dee ku mel ni imaam abu ashafii rahmatullahi alayhi ak waa këram gi taaye bu mujj julli gi yépp bi ngay toog muy dégg nga tawarruk taaya bu mujj ci julli gi ñi ngay toogee su fekkee julli gi dafa am ñaari taaya taaya bu njëkk bi da ngay def iftiraash da ngay su fekkee julli gi dafa am ñaari taay taay bu njëkk bi nii ngay toogee bu mujj bi nga toogee su fekkee julli gi benn taay rek la am ni suba da nga nii ngay toogee bu dee imaam Ahmad ibn Hanbal ak waa këram nag su fekkee julli gi dafa am ñaari taaye taaye bu njëkk bi ngay toogee nii taaye bu mujj bi nga toogee nii su fekkee benn taaye rek la am ni ki suba taaye bu taaye boobu nii ngay toogee nii ngay toogee dégg nga su ko defee lu tax Euh, différence yooyu le ku mel ne Abu Xanifata dafa sukkandiku ci xadis boo xam ne ñu ngi waxtaanee julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te iftiraaf rek lañ ci wax ku mel ni Imam Malik mi ngi sukkandiku ci xadis yonent bi sallallahu alayhi bu ñuy misaalee julla bu ñuy wax ne nan la daan jullee te tawarruk rek lañ ci wax bu fekkee nag Abu euh, Imam Shafii ak Imam Ahmad ñoom dañoo boole ñaari xadis yi ndax Abu Humayda Saaidi solo na ñaari xadis yëpp su ko defee nu ñu leen di boolee mooy kon toogaayu iftiraash bi Abu Xanifa te wax mooy taaye bu njëkk bi toogaayu tawarruk bi Malik wax mooy taaye bu mujj bi diggante imaam Ahmad ak imaam Shafii différence bi mooy kii dafa ne bu julli gi amee ñaari taaya ci lay am iftiraash ak tawarruk bu julli gi amee benn taaya nag dégg nga iftiraash lay am kii ne moom julli gi moom taaya bu mujj bi moom tawarruk rek lay doon moo xam julli gi benn taaya la am wala ñaari taaya ndax boo poojoo nee mën a toog toogaay bu yàgg pour mën a ñaan te mooy ndax taaye boobu mooy taayab ñaan te bu fekkee ne tamit da ngay pooju ci taaye bu mujj di lal ci taaye bu njëkk ki ñëw fekk imaam bi toog dana mën a xam ci ban taaye la nekk ñu ci taaye bu njëkk wala ci taaye bu euh, mujj su ko defee bu ñu xoolee dalil yi nag dégg nga ala anana maliki yow na waaye opinion wu imaam Shafi ak imaam Ahmad ibnu Hanbal moo gën a mën a dëppale yi nga xam ne ñoo wàcc ci toogaayu julli yëpp hada wa wa ala alihi wa sahbihi taala wa barakaatu mbokk yi sunu kàddu liy xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci mun Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ca Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Muntaqa saako ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha Sakho bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg nañ ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg jàng sa lislaam danga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat yi ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island